Euh, maam Thierno wax na ko ci biir kàddoom ñoom ñu bu ñu defee ñoom li ñu war a def dëgg état jàppale leen muy chambre consulaire yi ñun suñ bopp li ñuy daw nii day wàññeeku comme nag tàllal nañu loxo ñu war a ñoom convention convention boobu incha allah bu ñu jógee ci lii dès maintenant si la ñuy jublu ndax na ko ak chambre de commerce te ñu liggéey liggéey bu yaatu kon nag bu ñu oowee ci convention ñu nit dañ leen oo ci li nga xam ne mooy suñ taxawaay ci Kaolack ñu taxaw ci xam ne relève bi ëllëg ndaw ñi toog fii rek ñoom ñoo ko mën a gérer moy ëllëgu chambre de commerce ëllëgu élection chambre de commerce yu Sénégal yëpp pourquoi ki nga xam ne moo ciy dund di liggéey xam jafe-jafe yi moo ko mën a wax waaye pourquoi tamit lu jëm ci wàllu ministre de commerce directeur de commerce pourquoi waruñ fa séentu ndawu assise yi nga xam ne am nañ compétence am nañ xam-xam ñu war a mën a gérer lu nga xam ne moom moo jëm ci commerce Sénégal commerce Kaolack waxtaan ndax loolu wax naa ko ci sama benn émission bu yàggul barki demu fii rek ne assise loolu mu ngi ciy liggéey liggéey na ci ak Abdou Karim Fofana ministre euh, bi Aminata Assome Diatta liggéey nañ ci ministre de commerce ne ko marché yi nga xam ne ñi ngi lakk te lakk yi day répété wu répété waat il faut mu jege kuréel gu mel ne assise ñoom am nañ plan d'action ñu nekkuñu rek di kaas wala di laaj dañuy indi ay solution solution yooyu ñu indeek moom wax nañ ko ne carrément ñun dem nañ ba assise am na entrepreneur ci biir war na mën a gagné marché tabax marché bi ci moyen de un wala un an mu delloo ko seen i borom te du am coow ndax lu tax assise loolu yomb bi am place ci marché bi Aziz moo nekk commerçant bi Aziz am na ay moyens yu mu ko war a mën a defee ndax ku nekk commerçant immobilier yi ñu fi gis yëpp ñuy taxaw commerçant yi ñoo koy def kon kooku pour mu tabax tabax jafewut ko moo tax loolu waxtaan nañ ci ak ministre bi dénk nañ ko ci ay kàddu yoo xam ne bu buñ ñëwee seet si ñu dëgg-dëgg neex yàlla wala ñu oo ñu uyu ji leen gëm nañ ne lakk marché yi dina wàññeeku te bu wàññeekoo état bi lay jëriñ moom lay dimbale ndax ñun ñoo ciy perte waaye état tamit day ndax économie bi fekk yaa ngi euh, teg ay pas muy avancé nga xëy pa yi dellu ginnaaw état day perte ñun ñu perte kon loolu ACIS taxaw na ci taxawaay boo xam ne mayituñ benn yoon état muy jël ay marché di ko jox promoteur boo xam ne xamul réalité yi ñu dund xamul naka la ñuy doxee mu gérer ko marché boobu daf ñuy tardel tardel état bi te loolu d'accorduñ ci